jambes, soulève. Enchaînez, enchaînez, voilà, go. Alors, tiens, on assis, prends des gants rapidement. Regarde. Combat. Allez, allez, allez, allez. On revient au milieu, on revient au milieu, stop. Tu sors sur les côtés. Essaye de bloquer avec ton pied, ton poing. D'accord Faut pas se reculer. Fight par rapport à les autres fêtes. Donc, la couleur de la virus. Chacun dit une chose. Oui, Inès. Inès, plus fort. On ne bouge pas. Plus fort. Il faut se laver les mains. Très bien. Quoi encore Oui. Excellent. Encore. il faut tousser ou éternuer dans le creux du coude. Comme, comment Très bien. Quoi encore Fort. Utiliser un mouchoir à usage unique de un mouchoir à usage unique et ensuite le jeter. Vous utilisez une fois le mouchoir, après il faut le jeter. Ensuite, c'est quoi Encore Il faut Mansour Excellent. Encore. Il faut, pas, il faut, porter, un masque. Il faut porter un masque. Et quoi encore il faut éviter les regroupements. Encore. Éviter les regroupements. Ok, quoi encore Éviter de se serrer la main. Il faut éviter de se serrer la main. Il faut toujours garder la distance. Il faut toujours garder la Passou, trocou. grand maître Dame Seck ku dégg tuur bi di nga xam ni c'est un grand champion boo xam ni champion la ci li muy def waaye professionnel la ci muy def ñu ñëw fii tey fekk ko fi ci biir salle bi mu nekk ak ay xale yu ndaw ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen ñu seetlu ne technique yi nga xam ne ñu ngi koy def boole ko ay effort physique loolu xaw nañu jaaxal moo tax ñu buggoon ko laaj effort physique boobu nu ñu koy def ci xale yi boo xale yi bu sonn waaye non seulement bi ñu sonn waaye ñu mën a capter lim leen di jàngal beneen bi ci des gis nañu ay coup gis nañ fi ay coup gis nañ fi xale yi di daanu di jóg ñu seet loolu lan lay def ci xale yi ak ban éducation boo xam ni tamit seetlu nañ ko ci biir enseignement bi lan nga ñu mën a wax ci loolu maître Dame Seck. Euh, waaleykum asalaamaaleykum donc maa ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp di remercier encore une fois waa Senclic ñëwaat yi tey benn émission tey ñu consacré ko ak xale yi xam nga xale yi dañu nekk benn catégorie bu xam ne dafa xaw particulière donc ni ngay jàngalee xale ak ni ngay jàngalee mag bu benn lu bari dañ ci tenir compte euh, xale yi par exemple dañu gaaw ennuyu donc lépp lu ñuy def dafa rom foofu boo gisee moo tax échauffement bi ñu defe ko noonu boo seetlee aussi entraînement boobu yàgg parce que su weesoo waxtu rek parce que seen capacité de concentration bu weesu 45 mille quelque chose sax même 30 mille donc dañ koy boole foofu ensuite entraînement yi dana yàgg exercice technique yi aussi yi ñuy def booy seet euh, yëpp dañ ko def sur place donc ni ñuy travailler ak mag yi xam dañuy déplacé wu aller retour foofu loolu aussi daf leen di ennuyu te xale yi gën a tuuti ñu ko def donc dañu am benn programme boo xam ne xale bu am 5 ans wala 4 ans sax bu gën gis sax ñu def démonstration amul 2 2 ans la tey mu entraîné suba mu du entraîné bu ko neexee entraîné bu ko entraîné foofu mais terewul mu mën programme donc lépp méthode la day am partie bu di bi mooy fo bi mais bu série bi commencé ñu travaille sérieusement là aussi dañ ko def aussi progressivement donc da ngay def programme boo xam ne technique yi bëriwul ensuite nag loo xam ne xale yi ko mën a mën a comprendre donc loolu la euh, beneen bi aussi mooy aspect éducation bi donc dañuy profité ci loolu de civisme jàngal leen euh, les bonnes manières les règles de savoir yooyu yëpp dañ ko jàngal moo tax kon ñuy réciter les formules yooyu euh, nga xam ne dañuy xam na la ñu war a bu ñuy lekk dañu war a lekk raisonnablement ba ñu ëpp euh, bu ñuy wax ñu wax calmement donc booy dépenser nga dépenser ak sa xel mooy ñoo réciter daal mm-hmm. donc yooyu yëpp dafa bokk ci éducation du rek aspect technique bi mm-hmm. parce que booy seet parents d'élèves yi ñu indi xale yi c'est surtout parce que xale yi dafa am problème concentration ñu def yenn enchaînement yi il faut mu concentré te bu gisee yenn morom yi def ko dina ko def da gis xale yoo xam ne dañuy turbulent bu ñu ñëwee fii aussi dina leen redressé sans pour autant dóor leen mais dañuy combat ak seen ay morom yenn saa yi nga xam ne seen morom xam nga ko leen tuuti foofu dina dem ba dina am lu mu change ci ñoom donc yooyu mooy aspect yi xam ne vraiment dañ ci insister suñu enseignement si sama doom.

def benn mouvement da nga koy boole ak yuuxu yuuxu boobu lan lay gis liñ ci engagement waaw loolu dañ di permettre ñu libérer seen énergie mooy ceeb bi rek mooy ceeb bi benn son la boo xam ne dañuy ci abdomen bi yéeg ci biir bi jaar si baat bi def libération énergie xam nga nit ki moom da ngay inspiré wala nga expiré fii moom da ngay gën a accentuer expiration bi nga lay permettre nga gën a mën a récupérer day permettre aussi sooy doon mu encouragé la euh, ceeb bi mooy un mooy un bi ki di def ci euh, boucheron bi tam ay gën a am doole benn euh, basketteur bi euh, buy sànni bal bi ak yenn force yi bu yóbbu sax ko tey loolu moom mooy kenn. beneen bi si def seetlu nañ ne xale yi léeg-léeg mu am ku def benn affaire mu mel ne dañ koy finir ñu ñëw fii di pompe yooyu yooyu lay def ci xale yi. waaw loolu aussi xam nga sanction la boo xam ne buñ la dóor boo def pompe dina métti mais dina renforcer en même temps sa yaram donc mission bi nga xam ne dañ ci gagné dañ ci gagné parce que loolu ko defal parce que foo ko defee da lay nit. mais di ci gagné ensuite dina gën a renforcer sa yaram donc punition la boo xam ne ñoom aussi dañ koy dañ koy léegi dañu doon laaj léegi bu fekkee ne pour ñi nga xam ne parents yi seetaan ku ci bëggoon a ñëw indi sa euh, bëggoon nañu xam renseignement yi c'est-à-dire inscription bi demee ak itamit mensuellement lan ñaata la fa xale yi di fay ak heure d'entraînement yi ak jour yooyu tamit bu ñu ko xamoon pour ñi nga xam ne ñooy suivre émission yi nga xam ni dañ koy def fii ci seen Senclic di ko def ak maître bi ñu fexe ñoom it ñu abonné nga xam ne bépp vidéo boo xam ne def nañ ko ak yow ñoom ñu mën ko am pour mën ko seetaan pour xale yi. waaw ah, déjà dañuy encouragé parents d'élèves yi ñu indi xale yi ñu def arts martiaux donc dañ obligé ñu am xale yi c'est rare nga dugg kër ay xale wan leen ginnaaw te duñu foog ñëpp a ngi tranquille te télé bi nekk rek ay gan bañ ci nekk beneen boobu si day baax xale def exercice parce que léegi dañu ci bëri ñu def ci appartement donc bu matin au soir xëy dañuy dem ba xaw a xaw a nooy sax xaw a parce que ñu def benn église dañuy toog rek ensuite mën nañ dem ba obèse beneen bi aussi bu ñu ñëw fii dina tax ñu am confiance en eux confiance boobu daf leen di permettre aussi sax ñu gën a nekk à l'aise à l'école donc pour adhérer fii ñun dafa formule bi ñuy def boo buggee ñëw déjà dañ lay offrir benn semaine boo xamante ne ñu entraîner gratuitement c'est-à-dire nga def un trois cours d'essai nga bàyyi xale ñu essayer ante na kay morom jom ñu sol tur yorul dara mais su fekkee nag affaire bi neex na ko accroché na ko après ñu soog ko inscrire de façon inscription yooyu du dara compliqué su ñëwee fii lépp on va gérer ça. <laughs> donc defe dégg ngeen li maître bi wax ci képp koo xam ne am nga xale boo xam ne bugg nga ko indi mën nga ko indi mu entraîné wu gratuitement bu demee ba affaire yi neex ko su boobaa mën nga koo inscrire te soo ñëwee am na nu mën a defee ak yow. fais de quatrième. J'ai commencé de m'entraîner ici à Samando il y a trois semaines. Je fais un débutant. Si la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est que moi, m'avait dit pour que je m'entraîne dans les dans, qui dans ma soeur. Et aussi, mon oncle m'a inscrit ici et tout ça. Et ici, c'est du parce, qu'on on, on mieux se défendre quand on, on on va Je m'appelle Félix, j'ai 9 ans et demi. J'ai commencé le taekwondo il y a à peu près 3 ans. j'ai commencé le taekwondo il y a plus de 5 ans. Ça fait longtemps parce que je pas commencé ici. Dans le taekwondo, ce que on ne se fatigue pas trop. et on joue en apprenant en même temps. Je m'appelle Mohamed Rassoul Seck, j'ai 14 ans. Euh, je, je fais le depuis que j'ai 3 ans et je suis l'assistant du maître. Parfois, je supervise, parfois je m'entraîne. Et on peut dire que c'est un euh, maître exemplaire et c'est lui Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé cloche bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin